yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang la ilaha illallah war na yàlla لا إله إلا الله ريال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله يا رب ممزة لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله ورنا يا لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله ndeyingo ya rambi la ilaha illallah ya rama sorufa la ilaha illallah la ilaha rama mamfa la ilaha illallah ilala sorufalo ngenel nga la ilaha ilala la ilaha ilala fa la ilaha illallah la ilaha illallah ngara masarafa la la ilaha illallah ya nu la ilaha illallah la ilaha illallah am tawru faalo ngeneel nga asalaamaaleykum mbokk internetu wasaare news ak lii di Dakar midi euh, dal leen nag jàmm fii si euh, dëkk bu sell bi muy Touba Touba nag euh, depuis ajjuma ba léegi depuis ajjuma ba léegi ñuy fi pour dégtal leen dégtal leen lii di information ak lépp lu fi tukkee comme xibaar ñu ngi leen di ñaan ngeen may ñu bët ak nopp lii di Dakar midi ak Dakar news lépp lu fi tukkee comme information ak actualité du leen raw jaajëf. waaw ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil muhammad afdalu rusul wa radiyallahu an cheikhina cheikh il wa babihi fillahi babil muridina cheikhuna cheikh ibrahima fall wa nusallimu ala wasilatina maam cheikh omar ndiour waaw gannaaw bu ñu sante yàlla julli siyent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi waa addina bi yëpp di nuyu seen waa seen bi waaye particulièrement di nuyu communauté Mouride yëpp di ko tàmbalee nag ci xalifa bi sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaal mu yàgg fi te di nuyu xalifa actuel bu maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ di ñu ngi koy jaar bu baax moom tamit waaye di fa jaare di nuyu suñu wasila maam Cheikh Oumar Ndiour waaw li nga laaj ci maam Cheikh Rafal nag ah maam Cheikh Rafal moom mbiram lu yaatu la am ci loo xamante ne nongo yi nga xam ne ñoo jaar fa mu jaar ñoom rek ñoo ko mën a leeral waaye nag bu ñu leen doon wax ci Cheikh Ibra comme li nga laaj ne fu ñu di tàmbalee bu ñu leen doon wax ci Cheikh Ibra dañ leen di wax ci yoonu ak taalibe ndax Cheikh Rafal moo feeñal yoonu taalibe moom moo wane ne sëriñ bi aji jàngale la sëriñ bi yàgg na doon aji jàngale te taxul jaam ñi xam ne aji jàngale la ba tax na mu woote woote bu mucc ayib do am fanweeri nongo ak juróom ñeent maam Cheikh Rafal ñëw ñeent fukkee leen waaye bi mu leen ñeent fukkee leen nag ci feeñal yoonu taalibe ak feeñal kan mooy sëriñ bi ak lan la sëriñ bi woote ci ñëwinam dafa wax ne dama topp tànk yàlla ba tànk bi réer ma ci sa daara ji yow Ahmadou Bamba tànk bi réer ma mër ci sa daara ji xaw ma fu muy jaar nag soit ma def la ngay suñu borom wala nga àggale ma si borom jaam ñi kooku mooy Cheikh Ibrahima Serigne Touba ne ko nongoli loolu moo la tax a jóg ngeen ne mu ne ko àgg si yàlla borom jaam ñi Serigne Touba ne ko nag jëlal mu baatu laa ilaha illallah te bëggawutal app kon la Serigne Touba woote. feeñal tamit nan la nit ñi def ba jariñu si bu mu tàmbalee jaayante gi tamit mu tàmbalee jaayante gi yamalewu ko rek si xam-xam bi nga xam ne moom la àndante teg sëñ bi waaye dem na ci ba jël léppam joxe ko daal di laxasu joxe léppam miraas boppam léegi nag laxasu gum laxasu di liggéeyal sëriñ bi ci la liggéeyal sëriñ bi ba làq ngërëmal sëriñ bi kon moom moo feeñal sëriñ Touba lu mu woote waaye moom moo feeñal tamit sëriñ Touba moom Cheikh Ibra muy mbiram boo xam ne nag mbir moom lu la ndax Serigne Touba dafa woote ne naf un bila darar mu ne njëriñ la bu ànd ak ñu ne ko njariñ bi mooy lan mu ne maam Bamba daawul yëree dóor baatin la lay jóor est-ce que Bamba yaa raw ci góor léegi baatin bi nga xam ne moom la doon jóor góor ñi nag baatin boobu la Cheikh Fall laaj sëñ bi ba tax na Serigne Touba wax ne bu ma doon nënd galañ bi ma war a tëggi ñëw na ndax lan moom moo feeñal liggéeyab Serigne bi ci feeñal gu mu feeñal liggéeyab Serigne bi sëñ bi ne ko boo fi defee ndigal bàyyi tere di nga xal si ngaa dem ba doon Babul Muridina kon Babul Muridina googu mu doon moom moom murid diine moom moom mooy mooy gàndeeru yoon bi mooy serafal xalilullahi mooy xalilu rahmaani waaw moom daal moom kon moo feeñal njariñ bi Serigne Touba woote woon ba tax ñu ne maam serafal mooy lampab yoon bi kuréel mu gindi la kon kuréel mu gindi la Serigne Touba da koo gindi ci pays suñu borom mu xam pays bi ba mën a gindiwaate ci pays bi li ci des nag mooy jaayante gum mu doon jaayante joxe léppam nag muy jaayante ngir am ngërëmal borom bi kon moom mooy Baabul Muridiina. waaw li bàyyi lépp topp kii di Serigne Touba dimbali ko soytu ko ba yoon bi mën a leer bi ñu ni jamono dafa changé léegi soxalante beeg bañalante beeg ñàkk nangu nit ndaw ñi lan la waaw sa laaj boobu li ma si wax mooy ndaw ñi li ñu si mën a def mooy roy maam Cheikh ndaxte maam Cheikh maam Cheikh jàngale leen si ñëpp jàngale leen si ñëpp waaye rawatina ndaw ñi nga xamante ne tey bëgg nañoo baax. mais ñakk xam yoonu baax ak ñàkk xam kan moo leen di baaxal kon ke képp ku jóg pour roy maam Cheikh wala pour jàng si moom li la war rek mooy nga xool fa mu jaar ak fa mu teg tànka maam Cheikh ba mu ñëwee la mu njëkk a def mooy jébalu mu xool ba gis te ba muy jébalu tamit dafa wane yoonu jébalu ndax lu tax dafa wane yoon ba mooy képp ku mu topp xam ne ne doo waaj a mooy la saawaay ki may wër du yow kon moom dafa xamoon li ko tax a jóg di wër loolu ci koo xamante moo ko si mën a dimbali mu mujjee si ku ñuy wax Serigne Taïba Dakar mu fekk dëkk bu ñuy wax Dakar si la mm-hmm. waaye bi mu bi mu jaax soog Serigne bi ab diir xam na ne kat sëriñ bi matu ko sëriñ mu ne ko sëriñ bi gala bu la du la may ker kon fa la romb dem wëri sëriñ Touba ba mu deen deg sëriñ Touba nag ci la ci la ci la dem ba mootul dox ay tànk mu xam ne ne kat ki muy wër kii la sëriñ Touba dimbali ko si diggante mag boromam mu dimbale ko si leer gi nga xam ne Serigne Touba moom la woote ba Ahmadou wax ne yeeku yi diyaa an ka daw i shamsi xaysu naha mun a yaxza biha kullu saxsin zi sinaraati leer googu la dimbalee maam Cheikh mu ne leer googu de képp ku ko xam ci ngay gindee bépp jëm buy sàkku gindeeku mhm. kon Cheikh Rafal leer googu noonu ci la ko Serigne bi gindi ba tax na képp kuy ndaw koo xam ne bëgg ngay jàng ci moom wala nga bëgg a roy ci moom mhm. leer googu noonu lijjanti ko ci ki nga la mhm. xamante ne fa nga a jariñuwee kon Cheikh Rafal loolu la loolu la leeral kon loolu li nga xam ne moom lañ ko war a royee gannaaw loolu jaayanteeg suñu borom pour am ngërëmam gan jaayante ci gannaaw ba nga xamee maam Serap Fall gannaaw ba ko sëriñ bi xamalee ci la nag doog a nag laax su bàyyi lépp nag bàyyi aduna bi nga xam ne ne ay naxee mbaay la maanaam ba mu bàyyi loo xamante ne tey day jeex daal di jëm ci lu dul jeex ku ne xam ne ne sëriñ bi moo dul moo dul jeex waaw ndax sëriñ bi da koy jëmale ci borom mu xam ne yàlla moo dul dul jeex léegi nag géej googu ko sëriñ bi yoobu nag tey ndaw ñi pour ñuy jariñu ci moom foog ñu xam ne ne lépp lu ñu topp lu dul maam Cheikh lépp lu ñu topp lu dul roy ko lépp lu ñu topp lu dul yàlla borom jaam ñi day xëy bis jeex wala nga dem bàyyi ko fi mais yàlla mooy li nga xamante ne tey képp ku dugg sa biir bàmmeel mu nga fay fekk moo lay jëriñ moo tax maam Cheikh fa loolu la jàngale woon parce que jamono bi gis nañu xam ne waaw waaw waaw xam nga loolu lan moo ko waral boo waxee ne Baye Fall dañoo changé Baye Fall yi changé wuñ Baye Fall duñ mës a changé ndax xam nga lu tax maam Seera Fall dane woon demi jamono kuñ ne yow a nga ne nga ne du man ba mu des moom mu ne saalaaw lépp dina changé ba mu des moom kon moom nekkul kuy changé te ñi nga xam ne ñi ngi koy roy te dëggal duñ mës a changé waaye yoon boo gis rek du ñàkk ñoo xam ne ne dañ ci raaxaloo fekk bokkuñ ci léegi ñi ci raxaloo te bokkuñ ci loolu fépp la am ñooñu ngay denenteel ci biir yoon bi mënuñ laa wax lu la jëriñ ci yoon bi kon dañoo nekk ci yoon bi fekk ne bokkuñ ci yoon bi te sëriñ bi da ko waxoon sëriñ Tuubaa dana woon bis dina dem ci manding yëlbu mu ne ñii dama leen di jës bu ñii dama leen di yëlbu ñii dama leen di dëkkoo mu ne ñii dama leen di yóbbu fa rabbu waaye nag yow boo toogee xool ci gerte nekk si yére boo fëggatoo mooy wadd kon ñi nga xamante ne dañoo jàppuñ ci sëñ bi jàppuñ nañ war a jàppee sëñ bi bu yël boo ñoom ñooy wadd mu ne ñii dama leen di dëkkoo mu ne ñi leen di yóbbu fa robbu am ñoo xam ne dañ leen di gës bu dañ leen di gës bu ñi am xaal di bëgg sëriñ bi mais taxul ñu jariñu doon dëgg-dëgg murit mooy jariñu ci li sëriñ bi woote ndax sëñ bi li mu woote pour pour jaam ñi la sëñ bi dana woon moom yërmande yi jaam ñi la kon yërmande yi jaam jim jim doon kon Baye Fall yi nekkuñ ñoo xamante ne dañuy changé mais sëriñ Touba nag fa nga xam ne rasulullah ba mu ko a daf dafa wax ne tas na daaray ñangaan samp daaray tarbiya daaray tarbiya mooy li ma la wax ne da daan yar daawul yare dóor mais baatin la lay jóor ku denteeg ab sëriñ laa yar ci loolu yow di nga roy maam serafal ci melo boo roy maam serafal ci melo nag yow la ñuy dentel ngay def jëf yu fekk du loolu mooy Cheikh Ibra mais Cheikh Ibra kenn mosu koo gàgganti Cheikh moo gàgganti naari gànnaar naari gànnaar yi bu ñu ñëwee fii di lijjeen Cheikh Ibra di di ñàkk a julli Cheikh Ibra fan la mujjee Chérif mu ne man sakka fii Ibrahima Fall moom Serigne moo ko bind de mu ne képp koo xam ne yaa ngi sikki sàkk ci Cheikh Ibra mu ne wa fii tariqati hil kamal ak yoonam bu sell bi mu in lam yatub gadan mu ne ëllëg bu tuubul yàlla xansa dina den teg ay duma kon kooku Serigne Touba waxal mu ne innaka al kamal yow yaay ki mat fawqa rijal mu ne ko góor ñëpp yaa leen tiim kon kooku képp koo xam ne yaa ngi koy roy la am solo rek mooy nga xam moom nan la jariñëwee sëñ bi nga jariñëwee noonu sëñ bi ndaxte lu waay di wuyoo rek lu waay di woote woo rek daf ko maam lu wuy wuyoo rek daf ko war a nuru mm. daf ko war a doon mm. kon Cheikh Rafal dañ koy roy mais des koy doon mm. dañ war a jëriñu si yoonam bi mm-hmm. kon daal maanaam ci gàttal képp koo gis moom mënul laa leeral ci yoon bi wala jëriñuwul si yoon bi xamaanaa moom moo xam fi sëñ Touba jëriñuwee Cheikh maam Cheikh Ibra fi mu jëriñuwee sëñ Touba mais Cheikh Ibra daf koo jëriñ dafa jariñu ba tax na Serigne Touba daf ne waman tawassala mu ne képp ku jokk bi waasilin ci aji jokkale mu ne wasal di nga àgg àgg lan àgg fa moo tax ñu ne la mbër fa diwaan lay yëngoo mbër mbërum Serigne Touba nag mu ne fu daan lu tax ma ngay takkee nomb fa pays diwaan kon pays diwaan ba nga xam ne fa la mbër di takkee nomb tey jii nii képp ku soobu ci yoonu Cheikh Ibra foofu nga war a jariñuwee mais nag li góor yàlla bi wax maanaam question bi nga posé ba góor yàlla bi di leeral tey taalibe yu bëri boo gisee ñàkk a mat taalibe dafa bëri sang yoo xam ne matuñ sang mais kii nga xam ne ne mooy jàngale moom su matewul maître wax dëgg yàlla kii war a jàng tam du xam fu muy tànkam loolu tam def ci bëri lool digle yi digle lépp lu baax rek sëñ bi digal na la ko yoonu Cheikh Ibra lépp lu baax rek digal nañ la ko waaye lépp loo xamante ne ne méngoo ak njub lépp loo xam ne tey man su ma koy def sama seen bu ñëwee ma laqatu Cheikh Ibra loolu tere na ko mais xam nga ne lu baax yow doo ko def kenn di ñëw ngay laxatu kon sëriñ Cheikh Ibra ndigle mooy lépp luy lu baax digle na ko lépp lu méngoo wut ak lu baax Cheikh Ibra santaane wu ko te te Baye Fall dëgg day dépassé ndigal ndax lan mooy ku ñuy digal daa xamagul lu ko war mhm. da nga cee tënku dañ ngay tënk nga nekk ci doo xaar ñu lay digal ñu lay lay yow tam waaye safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti na di way sang be